sunu sang bu baax bii di Cheikh Abo moom day sama soppe di ko xam ne dañ koy topp muy wax lu leer wax dëgg yàlla euh, di nit ku baaxit nag nu wëllërante bu yàgg-yàgg yàlla dogalaat ñu bokk daje màgga mook Cheikh Abdoulaye juuf mais nga xam ne ku ko xam xam ne nii la daan toogee di ko jàngal Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, Cheikh euh, Mouhamadul Mourtada di doom Cheikh Ahmadou bàmba kon jataay bi wax dëgg yàlla kontaan naa lool ci ñëw ànd ak yéen jataay bi rawatina sëñ Lamine mii nga xam ne moom <laughs> moom damay wax ne moom day jàngale ak taalibe moom <laughs> boo ko xoolee rek da nga gën a xeeme maat yoon wi mm-hmm. gën a xeeme maat yëf yi mm-hmm. kon daal nu ngi sant yàlla bu baax nag di dellu rek mm-hmm. di dellu si ci li sëñ aboo wax muy jaale ndax xam ngeen ni fan yi euh, sëriñ Fallou njaay moom Baye Sëriñ Ndiaye doo noon kenn ci yoon wi daf fee bàyyi ko ñuy ñaan suñ borom jéggal ko te yërëm ko te wanale kook Cheikh Ahmadou Bamba mm-hmm. Serigne mm-hmm. moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Fadil mm-hmm. moom it tey ji lañ ko doon denc euh, ci maanaam euh, diggante bu gàtt ci ngoon kon ñu ngi koy jàlli jullit ñëpp rawatina murid yi euh, Cheikh Mouhamadul Amin ñaan dafa am solo lool ci diine am na benn naaru gànnaar boo laajoon sëriñ bi ne ko ndax jamono ji ñu toll dina yell nu jël ngànnaay jàmmaarloo ak noonu lislaam yi sëriñ bi ne ko loolu de waxtu wu nekk war na waaye li gën a war ci jamono jii moom mooy ñaan ndax ñaan mooy ngànnaayul jullit ñaan nag liñ ci gën a taamu mooy nga def tawasul ci loo xam ne dafa am priorité ci suñu borom subhaanahu wa te loolu sëriñ bi kenn la ci sëriñ bi dafa wax ne mbooleem ñi bind lu jëm ci yàlla ak yonent bi boo gisee sama bind féete ci kaw gën cee màgg du damu nag waaye nee na doomu aadama bindee wala mu wax lu jëm ci yàlla wala bu yonantam yàlla da koy gaaral ñeenti gaaruwaay yii muy nashadu muy nafsu ak seytaane ak hawa ak dunya ne leen kenn ku ci nekk na ma càmbaral jëf jooju loo ci am nga jël ko nee na bu bakkan jële wàllam seytaane jël wàllam bànneex jël wàllam adduna jël wàllam ne du tee dana des waaye lay des yàlla du ko soxla ndax yàlla du soxla aw des nee ñu daal di delloo jëf ja ña ko jëf mhm. mais ba mu des nag man sama yëf mhm. man sama yëf mhm. saa bu ñëwee ci suma borom subhaanahu wa taala bu yàlla càmbaree sant ñeenti gàllankoor yooyu noonam yooyu nga xam ne ñooy nooni jëf buñ ko càmbaree nee na euh, bakkan du ci am cër saytaan yi du ci am cër nee na bànneex du ci am kë kër wàll waaye àdduna it du ci am wàll mm-hmm. nee na yàlla ne kon jëf jii moom nangul naa ko nangul naa ko ki ko jëf mm-hmm. boo xoolee sëriñ bi xasida yi da koo xaaj ay xaaj mm-hmm. njëkk géej gi géej gi ak euh, gànnaar ak ceyeen nag jolof dafa wax ne li ya'lama kulla man taalaqa biya annani tawajjahtu ila allahi taala bi tawalifi li takunu fiha manafiha almuslimina walmuslimat fi dunya wal axira euh, mu ne nag wa annama katabtuhu fi xaybiyatil bahriya xidmatun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sëñ Abo wax na ko léegi ne ne wa zikrun wa shukrun wa jihaadun laa xayru mu ne lim bind ci géej gi moom weesuwut ñett yooyu zikr la ak sukru ak jihaad boo xoolee xasiday géej gi sax boo gisee mu wax ne euh, euh, génnut yooyu dafa wax sax ne naxtu euh, manaxtu naqluhu <laughs> wa satartuhu maanaam mhm. tere nañ sax ku ko tuxal mhm. nañ ko suturaal mhm. loolu lim ci jublu rek mooy day xasida yu bari doole yoo xam ne bi mu koy bind moom dong ak noonu yàlla yi ca géej ga daaj yi ngeen koy daaj yéen moom dalaan def bu demee ba jant soo ba mu lëndëm te foofu dafa bëri garab te lëndëm te wéet day jël kaala gi ndeysaan takk ko ci ndigg li di ko yëkkati nii ngeen ko yëkkatee yéen suñ borom xamal ko ne ko boo bàyyiwul yëkkati gi nga ko yëkkati mm-hmm. ñoom ñëpp ñu dee ba jeex ci mbas mm-hmm. kon bàyyil yëkkati gi nga ko yëkkati waaye nee na loola la ma ci yàlla faye mooy bi ma ñibbisee mm-hmm. daaj yu wutee yooyee ma daan daajal sama bopp ci géej gi damay toog ba yàgg rek ma dégg benn bi bu jolli daaj daaj bu mel noona te man du ma xam fu mu ko jëlee su ko defee su ma ko laajee rek ne ko lii foo ko déggee mu ne ma lii de ci yow laa ko déggee ne ma ne ko may de ci malaaka yi laa ko digg ñu di ko jàngi noonu ci malaaka yi laa ko digg ñu di ko jàngi noonu daal di wax nag ne euh, la nga xam ne bindoon naa ko mu jiitu boo gisee sëriñ bi naan loolu yàlla nangu ko loolu lu njàngale mu xóot la mm-hmm. loolu ci nga xam ne sëñ bi mooy sëñ bi mm-hmm. fi mu ne nii complexe mm-hmm. xam nga man fi mu toll nii bu ma la ñaanoon mayoo ma rek su ma génnee sax mën na maa sagu wala ma dugal yu kenn xamul na attay rek xam naa da waaye moom dafa wax ne loola la tax yàlla nanguwu ko booba moom xaj nag nit ñi dañ koo jàppewoon boroom xam-xam bu am xam-xam rek di bind moom it muy wane na am na xam-xam di bind waaye nee na loola nag bi mu demee nag ba euh, ba ba ca nja mujjug njaareem nga mm-hmm. xabilte lii min assasine libal bal sasin mu nabbahan fi saaka amal asasi daal di wax nag ne képp koo xam ne nag wa man araada mm-hmm. an yantafiha fi dunia wal axira fal yajtahid fii ma katabtu fi baqiyati si ama sahid naa bi karamin mm-hmm. fa tilkal makatiba faaxat xayral qurani wal qat'an wa laha barakatun xasima mm-hmm. moo tax loolu lu mat a taxaw la mm-hmm. mu ne képp koo xam ne bëgg nga njariñul adduna ak loolu àllaaxira sëñ Tuubaa wax de mm-hmm. yow murit bi nga xam ne nag loolu rek nga bëgg te yaakaar naa ne ku ne ci adduna njariñul adduna nga bëgg ak loolu àllaaxira sëriñ bi ne ni ngay def ba am ko nag mooy fal yajtahid mooy na nga ijtihaad wali si na jaahadu fii naa la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la mahal muhsinin na nga ijtihaad ci xam ci ama sahid naa bi nee na loolu diggante boobu di ama sahid naa bi karamin li ma ci bind fa tilkal marka fa tilkal makatiba faa xat xayral qur'aani wal hadis xat an walaha barkatun asim loolu alquran ak hadis nee na looloo la gën a kawe moo la gën a màgg te barke bu mag a nga ci léegi kon nga bëgg a xam ama sahid naa kon da ngay def siin su tooy mhm. mille la hakubeer gi cinq la mhm. deel gi quatre la nuun gi cinquante la alif gi un la baa gi deux la keef gi vingt raa gi deux cent la mu jox la mille trois cent vingt deux ci ci ci ci hijriya mille trois cent vingt deux nag boo ko boo ko dóoree ci miladiya moo lay jox li tàmbali mille neuf cent deux ba mille neuf cent trois kon sëriñ bi nee na li tàmbali mille neuf cent ba mille neuf cent trois ba ba ni ma ñëwee njaariñ ba bi may ñëw Touba gii li ma fi bind moo loolu alxuraan ak addis looloo la gën a kawe te nee na barke nga ca boo xam ne bu màgg a màgg a màgg te nee na barke ba ci nekk nekkul ci yeneen taalif yi ma taalif moo tax rafaha maa katabtuhu min asasin munabbahan fi rafihi fi talsasi wax na ne la nga xam ne sax suñ boroom daf ma ne woon nangu lu ma la ko bi ma demee ba nga xam ne dama jeex takk ci moom ba nga da disituma dara dara dara daf ma mujj ne ma loolu sax nangul naa la ko moom lay wax naan awalu mabtada bihi alqadimu tahaluqan bi man la lahu taqdimu wa ashara alqidma taama jeysashin wa qalbuhu admaraha min asashin parce que boobu it te fe teg fekk na mu xam ne moom ala kulli haalin naka jëkk mooy doon xaadimu rasul mhm. waaye gis nga mbindam niñ ci mën a def tawasul pour dellu ci yàlla mhm. mooy moom léppam yàlla daf koo bëgg tuwasilu axlaami mhm. ilallaahi abidan bila xalwatin walaaw ab xaa kama axna xasida yi day yëggale nit ci yàlla fi ne lii la nga gis fii nit ñu de ñuy tooñ bu ñu dee tooñ murit saa dañaan ah léegi dafa egg ci yàlla muy lu jafe te loolu li ci gën a gaaw du kurus du talzam lu ismulaayil axzam ndax ismulaayil axzam li yan xaada indal bahari maarumtu birida wali xaada sirrul ismi bi nasri wa nasbi nee na ismulaayil axzam suñ borom wommatal na ma ko yaa nga xam ne talzam la ñu tënk ko maanaam lëm ko suñ suñ borom defal na ma ko ci li ma way ak li ma wesar ismulaayil axzam bu mën a doon demal ba jubbuti demal ba sordaani demal ñu jox la juróom-ñaari faati yooyu dagg am sasun tasaqun tam sasin kasun xisisin xasam sasak yooyu mu jàpp faatiha nga ñëw benn bayitu sëñ bi di ko wecc moo tax mu ne li yan xaada indal bahari maarumtu biri dox wala in xaada sirul ismi ismulaayil azam mhm. bu ko nit bëggee nga xam ne day yor kurusam nu ñu naan diw de léegi dafa am aw tur mhm. nga xam ne dañ naan la tur wi loo ko jënd nga naan ah ki ma ko jox de tërbiyee naa ko juróom-ñaari at ba noppi jox naa ko nangam liggéeyal naa ko mu doog a dagg tur wa jox la cat la sëriñ bi nag moom amut li muy nëbb li nga xam ne mu mën a digg àjjana dafa yemale doom ak doomi jàmbur fi ne euh, euh, rabbi bi maa yasrahu mhm. yaag sëriñ Saalihu Mbàkke radiyallahu taala anhu yéen a ci yem moom rek lay jàng di buy ñaan yow it moom nga dala koo nëbb sëñ Tuubaa nëbbunu ko ni ko sëñ Saalihu xamee ni nga ko xamee yow Mahamadou Lamine bu ko defee ilaa tawali fi yaqudu la asraara laa ilaha illallah mhm. nee na mbootum laa ilaha illallah sëñ bi wax na ko léegi ci bayit woowu ci masalik mhm. amma dawaamu zikru fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu na bëri waaye nag xat xultu zalika bi la israari wala ubali gis nga sànni xeer dafay yàgg de mhm. sëñ Tuubaa nii lii may wax faaliwuma ci ku may linkaar wala ku may wetti waaye ku ma laaj foo ko teg danaa la wax demal ci la jiitu wala tujaadiloo dégg nga fa fekk inna salata tanha anil fahsaa'i wal munkar wala sikurulaay akbar donte sax borom xam-xam yi werante nañ ci ne wala sikurulaay akbar mooy ak euh, kaabiratul ihram bi ngay wax ci biir julli ci ak fatiha xam nga fatiha sikkër la alxuraan zik euh, suñ borom dafa xam ne alxuraan zikr la mhm. ndax Euh, suñ borom nee na maa ko wàcce inaa nahnu nazlan inaa nahnu nazalna zikra wa inaa lahu a hafizoon del waxaat ne euh, del waxaat ne yonent bi wa ansalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi maa nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sëñ Tuubaa ba muy jox waa daari kaamil xaalis ba loolu la wax wa haza zikrun mubarakun ansalnaahu afa antum lahu munkiroon kon alxuraan moom nga xam ne moom ngay jàng faatiha jàng aw saar ak sami allahu liman hamid laak rabbana walakal hamdu dañoo wax ne tudd yàlla googu ngay tudd yàlla ci biir julli gi bu jëlu bu génnoon ci julli gi mu doon mu doon sport di kon sport rek lay doon ndax loolu mbër yaa ngi koy def appuyé avant jug toog loolu bu àndut ak benn tur yàlla dañoo wax ne kon mook entraînement képp boo gisee Cheikh Ibrahima Fall Baol di nga dégg diine mu ne ah, ah doom ak bari yàlla lu yàllay xool di xool di xool ba ne asa akbar lii gën a rëy hmm. man boo jàpp naa te dootuma walaf su laa ilaha illallah afdalu man na taxu sëñ tubaa nee na lépp lu ñuy wax laa ilaha illallah moo ci gën nga xam ne nee na sekkar bi laa ilaha illallah suñ borom rocci na ko defal ko ko ci biir xasidaa bi hmm. te xam nga ne laa ilaha illallah laa ilaha mooy nafyu maa laa yarda illallahu mooy yusbitu kulla ma yarda muy alkawnul kaw ni nga xam ne xajul ci balance mhm. kenn du ko peese sëriñ bi nee na nag dañ koo rocc ci sekkereb laa ilaha illa mhm. defal ma ko ci sama xasida yi te yow bu fekkoon tey ji damaa dagg benn tur rek mhm. boole la ci ismu saati lu mel ne allahu nga di ko wird fi ne faawu man mi la ko jox ma defal la seen saafara soo xam ne boo demee ba sa bopp di tàng ba bala picc mee naaw loolu ñu naan picc mi naawagut xam nga yooyu nag moom xam ne sëñ abo ñoom ñi xam nañ li may wax waaye balaa picc mi naaw xam nga ab wird kat dëkk fi mu ne picc mi day naaw te du ko déranger saa bu picc mi naawee déranger la nag yàqu nga ab wird kat dëgg picc mi danaan fër mu yëg ko mu yëg ne naaw na ba noppi te du ko déranger génn na naaw waaye bu naawee bu noppi déranger la nag mooy ka doon wirde ba yàgg mu dañ teer mi génn ci biti mm. ne soxna si abaloon ma yet foofu mu ne ko lu xew na jaay mu ne ko maana yàlla tiifu soxna ne ko déet yàlla tiifu moom du def kenn dara mm. kon jàll nga ci leneen mm. waaye sëriñ bi nag bañal la yooyu yow ngay dugg ci yoo xamut ak yoo xam ne boo ci tàbbee mën na laa yóbbu ci gaal goo xam ne da dugg di xuus xamoo fooy teere ji sëriñ bi andil la ko woyofal la ci ay junni doog ca am la ngay am sëriñ bi defal la ko nga wax ko benn yoon rek am ci li nga ci am euh, dinañ ci dikkër lu mel ne wakkaana xaqan alayna nasrul mu'minin xam nga sëñ bi da cee boole ñetti aaya day dawal wakkaana ba mu jeex mu dugal fasta fastajaaba ñetti yoon faasa na sahido di ko dawal ba mu jeex mu dugal falaa taalamu nafsun nga xam ne léegi loolu alquran la sëriñ bi jël di ci deeyaale ak boromam di ci def tawasul te lépp suñ boroom nangul ko ko mm-hmm. euh, kon murit bi nga xam ne dafa bëgg sëñ tubaa mm-hmm. te yaakaar ko na xam ne sëriñ bi wajxal kitaabatiya min sal yow mi fawqa salaati qubilat wa saw mi julli sëñ bi boo waxee ne defal sama defal sama xasida yi mu maanaam mu mel na julli gu ñu nangu wala koor du caage ne sëñ bi day wax ne xasida yeeg koor ak nangam daa bëgg jaamu yàlla nga ngay def yool ba ca am mm-hmm. yow mi jàng xasida mi nga am yool bu tol noonu te moom bu nee wajhal fixul amr la waaye madda li al xusna wa madda lii sa yad man li yaqulu haaka xabla ma diyat moom léeg-léeg suñ borom da koy teralee defal naa la ko ba noppi mhm. waaye ñaan ma wasala lil xaq min al xaqil mubiin mhm. lii xaada maa baana waaye nag wa maa lay sa yabin mhm. am na loo xam ne génn na nit ñi sañ ko gis waaye am loo xam ne sañu koo biral bu ko defee nag noonu muy ñaanee nag ni defal ma sama xasida yi ku koy jàng am yoolub julli hmm. boo julli woon ba noppi te yàlla nangu julli ga boo boo jàngi xasida yi nga am yool ba boo wooree ba noppi te yàlla nangu koor ga boo jàngi xasida yi nga am yoolub loola wajhal midaadi fawqa kulli maa i barakatan ka matari samaay xam nga ñu ci nawet hmm. Hmm. waaye sëñ Tuubaa ni muy ñaane sëñ Lamine dafa jéggi dayo <laughs> ndax euh, barakatan ka matari samaay gis nga fi mu ne amul lenn lu nit mën a lekk te du faatu te matière première bu jógewul ci mbay matière premier ba mhm. faaw rek lu mën a doon ci àdduna te xayawaanaat yi nga xam ne danga koy reen di jël ndawal ga wala leneen waaye lu ñuy lekk la rek mhm. ci ci ci gàncax ak lu mën a doon mhm. même xayawaanaat yi sax dañuy lekk gàncax googu nga doog leen mën a jëfandikoo yow waaye gàncax yooyu ci lañ ci lañ def ci lañ jël première yàlla def ci seconde transformé ko jël bele bi def ci yi jël nangam def ci nga xam ne amul lenn lu mën a dund ci adduna te matière première bu jógewut ci mbay mbay moomu nag ndoxum taw moomu ni mu barkeelee sëñ bi moom suñ borom defal na ko xësidaam yi moo moo barkeelum ndoxum kaw ndoxum taw ñoo tolloo xam naa sëñ Ibrahima dinañ jëm boobu xam naa incha allah dinañ ñëwaat sax ci sëñ Abou euh, ci li mu tàmbali woon ci xasida yi waaye ni ma leen ko waxee woon ci ubbi gi euh, sëñ Abdoulahad juuf di euh, jànkatu xasida mi ngi fi